Euh, jërëjëf encore une fois de les remercier Euh, yéen coow li Sénégal dëgg-dëgg euh, coow lu fi mujj ci jàmm yéen coow li Sénégal yéen a tax parce que di ngeen indi indil Sénégalais leeral leen ci dëgg Ousmane Sonko nag li ma gën a euh, jaaxal moo di dafa jar a bàyyi xel parce que diggante Ousmane Sonko ak le président Macky Sall daf may fàttali ki nga xam ne moo di Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor lépp loo xam ne Mamadou Dia Senghor tegoon na ko dañuy gis ne Macky Sall yëkkati na ko teg ko ci kaw Ousmane Sonko Ousmane Sonko nag li tax mu jar a bàyyi xel mu di xale boo xam ne damay wax ne pépinière politique la te li gën a euh, doy waar moo di Ousmane bu njëkk da nga doon wax ne xale yi ñoo koy topp mais léegi Ousmane mag ñi ñoo ko gën a topp Ousmane moo di politicien bi njëkk ñu dajaleel ko trois cent trente trois millions jox ko ko mooy politicien boo xam ne mësuma dégg sur ses discours mu ne suma falo dinaa leen defal nii mais nañ def nii loolu lay wax Sénégal boo xamante ne gis nañ ni mboolem réew yi nga xam ne am nañ koom-koom ci lu ko mel ni pétrole lu mel ni or lu melni gaz lu melni zircon yoyu rew yep ñu ngi développer kon sun Sénégal dafa soxla ku melni Ousmane Sonko ko xam denk dénk nañ ko alali Sénégal pendant quinze ans musu ci lek quinze francs kon Sénégal dañu soxla domi sénégalais bo xam dafa bëgg réussir total bu Sénégal dafay xol Sénégal parce que soxlawul auto dafay xol Sénégal parce que soxlawul kër dafay xol Sénégal parce que soxlawul tour. lim soxla moy Sénégal defaru ba sunu dom yi dem ci gaal yi Barça Barsaq des ci réew mi di liggéey dem ba Sénégal wara suqaliku dem ba li nga xam ne moo nekk Sénégal di ay potentialité ay nasaraan ñëw di ko jël comme lu mel ni sunu géej gi ñëw jël géej gi indi ay bateau napp li nga xam ne moom la Sénégal am ba sunu doom yi nga xamante ne ay mool lañ amatuñ ñu napp di dugg ci waaxi Mauritanie Nouadhibou ak yeneen indi ay jafe-jafe ay fitna te licence de presse yi ñu leen jox chaque jour li mu leen jural mooy ñuy sox seen ay bal ci seen kaw di leen rey di leen gaañ di leen di yàq seen i matériel kon nag dafay baax ba doomi Sénégal bu ne nga jàpp ci li nga xam ne moo di procès Ousmane Sonko bi pour ce que ñu tabax Sénégal ci jikko yu ba tabax Sénégal ci ragal mais tabax Sénégal ci juk tabax Sénégal ci li nga xamantene mom la mag ñu doon ñaan parce que am nañ mbooleem luy ressource pour Sénégal mën avancer. Abonnez-vous, Charles de Sénégal. Abonnez-vous, Charles de Sénégal. Abonnez-vous, ciao le Sénégal